Aliou ñu jëli euh, kii bi jingal bi te dellu siwaat ci pour actualité politique grève de la faim de Sonko qui est la vérité Aliou Sow. waaw boo gisee moo xoon ci dama bëggoon très rapidement. Euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu échange si tuuti rek. Mhm. Euh, parce que dafa am benn espèce su quiproquo j'allais dire quiproquo donc communicationnel par rapport à justement cette grève de la faim bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di def alors bërki dem ou bërkaati dem ba dafa am un ki sa s'appelle Ismaïla Madior Fall boo xam ne dafa am ci biir communication benn baat bu mu wax concernant justement Ousmane Sonko ak grève de la fin bi dafa ne Ousmane Sonko samedi ndekki na donc te. Euh, euh, grève bon alors ça veut dire que euh, grève de la faim amul chez Ousmane Sonko que que c'est totalement faux voilà c'est une façon de dire avec ironie donc sénégalais yi dégg ko tey ñu yeew suba teel ma gis ci journal bi un monsieur qui s'appelle euh, maître Clédor Ciré avocat confirmé man pour man c'est l'un des meilleurs procéduriers au Sénégal ce monsieur avec sa avec sa mhm. moom moom pour man bokk na ci ñu taxaw ñaar ñaari Ciré Bathily bi tamit il il est très bon ñooñu des boo xam ne damay bàyyi xel trop ci ci ci ñoom même maître El nga xam ne dafa farfelu je trouve que en procédure il est bon donc ñooñu damay bàyyi xel ñoom donc Clédor Ciré bi nga xam ne nag Ciré bi nga xam ne moom mooy euh, euh, avocat Ousmane Sonko dafa am baat bu mu wax bu am solo moom it mooy avocat bi donc jege na Ousmane Sonko nee na c'est totalement faux et que Ousmane Sonko est bel et bien euh, dafa nekk bel et bien di def grève de la faim alors yu mel noonu dafa may yóbbu toujours euh, sama xel ci wàllu manipulation alors kan mooy wax dëgg quelqu'un comme ministre el euh, Madior Fall qui est le ministre de la République ministre de la de la justice nekk patron wu kilifa wu administration pénitentiaire nekk téye justice su Sénégal kooku moo ñëw wax nee na euh, euh, Ousmane Sonko ndekki na samdi te kuy ndekki doo grève de la faim mënul nekk donte ci histoire u grève de la faim ci liñ ci xam am na ñoo xam ne dañ daan def grève de la faim pendant ki ci gën a yàgg maa ngi koy wax keroog Bobby Sands soixante-dix ans soixante-dix jours mhm. la grève la faim mais boobu da doon naan ndox ak suukar. daf téye téye na tenir na ba soixante-dix jours. waaye bu weesoo loolu am na grève de la faim totale. boobu boo ko defee weer boo ko defee am nga chance. est-ce que loolu dans l'histoire am na ku ko mës a def grève de la faim totale. waaw ba dee. am na waaw am histoire waaw mais en général. mënoo koy def. doo lekk doo naan ba pare boo defee trente quarante jours maximum non da dem comment. est-ce que nga àgg trente yi sax. waaw euh, boo teniree bu dee da nga nekk nit bu ay am corpulence ni xaw a am doole ni mhm. am yaram ses réserves en graisse mun na la xaw a xala téye mais ndox bi di nga dem ba da ngay suffoqué am problème ak say poumon. Mhm. te da ngay. comment doo lekk mais loolu non ñeenti fa fanweer ñeenti fa euh, ñeent fukki fan moom quarante jours c'est même pas la peine. boo commencé di def dix jours une ah, semaine semaine ba dellusiwaat rek da ngay sentir lekkoo naanoo parce que sa yaram day puiser da nga soxla ay nombre de calories entre mm. quoi mille cinq cent et mille huit cent même entre mille cinq cent et deux mille calories par jour loolu boo ko amul da ngay di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku benn pizza boo ko lekkee mille calories la bu jeex bu complète par jour donc soxla nga mille six cent ou mille cinq cent jusqu'à deux mille calories euh, par par par par par jour donc loolu boo ko amul da ngay sonal sa bopp donc une semaine boo ko commencé di gën a fan day feeñ ci yow ba pare day indi ay difficultés même li ñuy wax fan yi ni Ousmane Sonko dafa am ay euh, début d'insuffisance rénale c'est possible parce que yooyu day indi ay dafay dafay gratter day day xoos di xoos di xoos di xoos parce que lu war a dox soxla ay bagages gisu ko mm. dafay xoos day xoos di la yàq di yàq sa yaram ba yóbbu la coma surtout da ngay am problème respiratoire euh, bu defee ay quelques jours ma ne maître Clédor Ciré nee na mm-hmm. Ismaïla jox fa li mu wax dara du ci dëgg mais kan moo wax dëgg qui a raison yu mel ni dafa war di leer parce que kii moo jiite administration pénitentiaire Ismaïla Madior Fall lépp lu xew ci biir administration pénitentiaire euh, pénitentiaire xam na ko donc ou il dit la vérité ou il ment maanaam waxul dëgg l'autre qui est un avocat proche de Ousmane Sonko l'un de ses avocats les plus proches kooku nee na moom nee na Ismaïla Madior Fall ministre de la justice patron wu nekk yor tutelle wu nekk tuteur wu administra administration pénitentiaire kooku nee ñu nee na euh, du dëgg deful grève la fin parce que ndekki na samedi man nag li ma xam mooy ku ndekki defatoo grève la faim. waa léegi Aliou Sow sànq da nga wax euh, nga jël exemple ci Bobby Sens nga ne que euh, da doon naan ndox ak suukar. Mhm. est-ce que tamit. Euh, euh, est-ce que euh, Ismaïla Madior Fall ministre de la justice est-ce que am na information exacte que Sonko lu mu doon bu fekkee ne so Sonko mun na jël tam comme ni comme ni boobu seen si doon def mun na am le moom mu def ko nit si ñëw gis rek ba saa ñoo leen waa mu ngi lekk mhm. loolu tam mun na am mhm. mun na am comme yow li nga wax nii kii parce que man man démb démb démb dafa am kenn ku ma kii waa daf ñu seetaan leen lundi bi ñuy wax affaire grève de la faim bi fii bisaa mu woo ma mu ne ma bon moom daal wax na mu ne ma il paraît sax Idrissa Seck mus na ko wax. ci benn ci benn interview dégg nga mais c'est à vérifier mba sax nee na maître Wade moom kii la doon kii nen moom nen la doon def. moom day kii nen bi kii ko dégg nga grève de la faim foofu fële rëbës moom noonu la doon def est-ce que tamit par exemple. Euh, loolu fekkul Sonko di def noonu di jël ndox ak suukar mhm. di naan kooku ne eh ñu dem euh, rapporter parce que euh, daf ma wóor ne kii demul foofu mhm. kii nu ka sax ministre de la justice demul foofu mhm. dañ ko ko rapporter léegi nag est-ce que ci liñ ko ko indil est-ce que loolu c'est exactement dafa jël pain au lait mbu nangam di lekk ou bien da doon def li bi seen sa doon def naan ndox mooy patron wu administration pénitentiaire hmm. moom ministre de la justice gëm naa ni il peut être extrêmement bien informé surtout pour après di mën a capable jël ay risques wax yenn wax yi hmm. mais wax bi dafa leer wax nga manipulation wax naa manipulation waxuloo manipulation xam nga manipulation bi. Euh, de de tous les bords mooy li ma expliqué wax nga fii wax nga fële. mais mais dama lay tontu rek ci wàllum ndox bi nga wax noonu. ak suukar bi. <laughs> eh bien moom waxul euh, dafa naan suukar dafa ne ndekki na. il a pris wow. son petit, petit déjeuner. déjeuner. prendre son petit déjeuner mooy ndékki hmm. ndékki nag du naan dox ak mhm. suukar ndékki sax du naan du naan kafe ak meew rek kese mhm. ndékki hmm. du naan naan café ak meew ni ndékki woo hmm. ndékki ñëpp xam nañ luy ndékki prendre son petit déjeuner ah. maintenant mun na de petit déjeuner bu bu bu bu confirmé ak petit déjeuner bu simple selon ses moyen waaye ku ndékki moom ku ndékki naanoo café kese ku ndekki naanoo meew kese tey naan naa café fii après la ñuy ndekki ñun petit déj mm-hmm. Mm-hmm. parce que amuñu temps ndax dañuy waxtaan mm-hmm. ndekki bi après la ñu koy doon mu daanu ndax Adama Ndaw Gravas d' parce que pole yeeg machin yi ñëw fii euh, croissant yi xam doon ba ci suba rédaction dañuy ndekki parce que ndaw si muñ koy yónnee waaw léegi loolu ndekki la mais man avant loolu ni aw ma temps ndekki donte petit déj la ñu nekk Cheikh Diane Gomis damay damay naan café mais mënu ma toog di fi ndekki waaye si je prends je n'aurai même pas le temps. toog fi di wax pendant une heure de temps parce que il faut ma jël sama temps pour un petit quart d'heure au moins. mën a ndekki kon bu waxee ne dafa ndekki. eh sa ça veut dire que grève la faim amul waaye nag. de l'autre côté aussi ki nga xam ne mooy avocat am ki ko gën a jege ci ay avocat am moom li mu wax tamit leer na. voilà waaw léegi. ñun dañu sonn ci lii quoi à la ah est-ce que état de santé laaju ko mu ndekki tamit mais oui mais man man xam nga man li ma wax ma xalaat ci ci ci kii ci grève la faim bi wax naa ko semaine bi yëpp wax naa ko lundi wax naa ko mardi mm. man d'accorduma ci surtout que Ousmane Sonko d'accordul woon ci grève de la faim parce que dafa doon wax baaxul ci yaram et puis c'est pas un combat boo xam ne noble na te am na solo torop ba pare yàlla da kay tere mm. l'islam daf koy tere moom moo doon wax loolu ma d'accord ceeg moom te ba léegi changé wu ma ndax man mii loolu bu ma daloon duma ma grève de parce que amul njëriñ à part coow gu bari gi te à un moment boo demee ba 10 jours 15 jours coow gi day gën a bari ñu ci wax ci journaux yëpp say mbokk dañuy commencé di inquiété wu te dinañ la jox nga lekk donc à part bi ngay am ci benn période benn benn temps amul leneen loo xam ne am na ci solo torop coow gi rek la. donc mhm. yooyu war na mën a tax des fois nga utiliser beneen combat man su ma ko mënuloon dara d' accord ma ci parce que jullit laa mais d' accord ma ci surtout parce que man bu may xeex dara du ma ma du ma kii man du may bëgg di toujours di utiliser sama xel. sama xel nag pour ma mën ko utiliser normalement. Mhm. psychologiquement di mën taxaw di mën a combattre même bu fekkee dañ ma téye dañ ma tënk sama xel mu mën ko téye il faut que may lekk. parce que euh, xiif bi daf may indil problème. Aliou Sow nga. parce que ci ay délire sax ngay mujjee. Aliou ah. Sow xam nga euh, damay delluwaat ci euh, questionnement bi nga indi mhm. kan moo wax dëgg ci mhm. ci ñaari cas yëpp mhm. xam nga Aliou yow xam nga bu baax xam nga euh, maanaam l'opinion y a l'opinion sénégalaise et y a l'opinion am na opinion internationale waaw ñoom ñëpp dañuy bàyyi suñu kii xam nga am na nu ñu gars yi di communiquer. Mhm. xam nga am na nu ñu communiquer. Mhm. xam nga loolu tamit donc si à partir de là kon yow xam nga ne que euh, l' affaire de Sonko. Mhm. gars yi internationalisé nañ ko. absolument dégg nga ba tax na fu mu nekk nii pour maanaam nous sommes un pays dépendant des bailleurs de fonds dégg nga qui demande une démocratie dégg nga totale normale comme ñoom. kon nag il est tamit normal euh, maanaam un ministre de la république maanaam euh, moom muy joxe loo xam ne pour dalal xel maanaam l'opinion internationale. mais l'opinion internationale loolu dalalul seen xel boo leen waxee loolu surtout que immédiatement après un avocat l'un des plus proches du principal intéressé. Mmh. en l'occurrence Ousmane Sonko. eh ben <laughs> ñooñu dañuy am ay preuves man duma bëgg ñuy leeral mbir yi. Mhm. bi ñu nee xale yi euh, euh, car boobu dañ ko taal am na ay nit yu ci dee ñu naan manipulation la du chauffeur boobu sax du chauffeur du chauffeur euh, du du chauffeur bus policier la. Mhm. fii laa taxaw ca début de semaine ba jour bi mu amee ci sa suba sax ma ne leen bàyyi leen ñi ngeen ñuy def wax leen ñu dëgg. après si la ñu toog ñoom la lendemain. Mhm. génneel ñu ay. raison ay preuve que ni am na ñu fa dee ci laa ne ok donc ils ont raison fii moom au moins gars yi lu ñu dara au moins xam nañ ni aussi ki doon dawal chauffeur chauffeur boobu doon dawal te dëkk xaw ma ban dëkk ci àll bi mhm. foofu lay noppaloo taay parce que tànk bi day metti eh bien kooku xam nañ ni du policier bi ñuy wax moom la nekk point e foofu tamit manipulation amoon na fa mhm. bii tamit dama bëgg ñu leeral ko wax leen ñu est-ce que véritablement parce que man porte-à-faux avec le fait qu'il fasse la grève de la faim moom Ousmane Sonko je ne veux pas de ça parce que yàlla da koy tere parce que moom ci boppam loolu la doon digal donc warul nekk ci bu metti ba mu war a mën a tax même suñ ko humilier mu war a mën a tax muy def grève de la faim parce que de toute façon bu fekkee ni ñuy dégg turam rek la ci àdduna bi wala muy li muy continuer mu koy revendiquer eh ben dina continuer di ko def parce que de toute façon son combat est déjà totalement internationalisé donc à mon sens ce n'est pas la xam nga xam nga hospitalisé nañ ko waaw wala déet Hmm? te xam bu ñu la hospitalisé loo def médicament yi ngay jël. il mhm. faut nga faju ah, asalaamaaleykum il faut nga lekk. ak perfusion yi. waaw ak xam nga il faut nga lekk. mun na am tamit. Mhm. foofu wax boobu foofu. Mhm. foofu il était obligé. parce que il est face euh, ci médecin yi. mu ne ko léegi lekkal mun na am information boobu. information boobu la euh, jël. waaw. Euh, waa di wax ne Sonko lekk na. voilà c'est ça. waaw xam nga loolu tam loolu moo tax mën na la waaw loolu moo tax mën na la il faut que. est-ce que au jour d'aujourd'hui waaw tey fi may wax ak ñëw nii. waaw Ousmane Sonko est en grève de la faim. fan la nekk. fan la nekk waaw non fi mu nekk sax mu ak fu mu munti nekk. non non non attends wala bu dee man gëm naa ne bu dee hôpital la nekk. waaw forcément dafa war a lekk. mais mun nekk sax ci ci ci ci kaso bi ñu lay jox ay garab ngay naan ah. mm-hmm. waa d' accord. hospitalisation ci. waa d' accord leneen bu fekkee ne moom dafa dem ba feebar. waaw xam ne dafa feebar. Ah, mais la grève de man gëm naa ne. Mm-hmm. léegi foofu da koy arrêté. xam naa moment boobu. waaw te dafa war a arrêté mi ngi lekk voilà surtout da war a arrêté. voilà parce que mën na amal njëriñ un jour réew mi. voilà te on sait jamais. non man euh, man man ci sama xalaat ci loolu. Mhm. parce que sànq ba léegi maa ngi dégg baatu dëgg. ku wax dëgg ci ñëw kan moo wax dëgg. Mhm. ministre bi wala avocat bi ku wax dëgg. Mhm. problème bi nekkul foofu. du kan moo wax dëgg ki ñu war a wax dëgg mooy kan mooy Ousmane Sonko. ci lan loolu. très bonne question. moom moo am lu mu bëgg am fu mu jëm daf ko war a am jaba daf ko am lu mu ko war a jaral. lu mu ko war a jaral. tukulóor yi xaw ma pëj dañuy wax ni mosu saa boole xaw ma nu ñu koy jaaj sa objectif faaw nga souffrir Nelson Mandela ñaata ànd la tëdd. wallaahi 27 ans de prison. Hmm. wala cinq ans. mas hmm. ngeen di mas ngeen dégg ñu ne grève na de la faim. pourtant du ko dul muñ. Hmm. amee Ablaye Wade xaaral Ousmane Sonko Ousmane Sonko. moo taxaw fii wax ni ay mbokkam wala ay ay ay militant bi ñu bëggee def grève de moom moo taxaw ñu dem bu leen def grève de la faim diggalu ma leen ko. l'islam diggalu leen te diggalu ma leen ko. waaw xaaral ma ñëw rek charité bien commence par soi-même bala ngay digle càngaay day fekk nga sang kon yow li nga doon wax ak li nga def nit melul ni mu waxee li mu jëfee la mel kon li nga doon wax ak li nga jëf buy dëgg parce mënoo ñëw wax nii bàyyi leen grève de la faim li ngeen def baaxul ba ñëpp d'accord ci loolu tey nga ëlbatiku yow ko kon yow waratoo am na ko xam ne wax ja jaru muy wax parce que boo fekkee ay xale ñuy tëggi pot nga ni bàyyi leen tëgg pot mi ñu dem jëli ay sabar ñu ñëpp ñoo war a wax Njaga Mbay nee na yaa war a wax yaa ñu saf bu na tax wax loo xam ëllëg dina ñëw ñu nu la noppi ba sa wax jot nga wax kon li ngay wax yàlla na fekk yow nga di ko jëfe parce que booy joxe conseil dafa fekk yow tamit loolu mu nekk ci yow mm-hmm. mais bàyyi leen li ngeen di def ba pare ëllëg yow nga def loolu mais bu ñu ñëwee Cheikh lu ñu la war a wax kon Ousmane Sonko de moom kilifa la dafa am ñu mu boot dafa yoon njaboot lii muy def nii grève la faim bu ci deewee yàlla yàlla na dund bu dafa xaru parce que grève de la faim yow dañ laa jox lekk nga ni lekkuma kooku sa propre grève la yow yaa bañ ñi doo lekk bu fekkoon dañ ñu la indil kenn kenn dañ laa yeew téye la ñu la doo lekk lu la ci dal ñooñu si responsabilité mais ñu tegal la fii ceeb nga ni lekkuma ñu tegal la soomi nga ni naanuma ñu tegal la mburu nga ni lekkuma lu ñu la tegal nga ni lekkuma nga gedd ba musiba dal la ci kooku da nga xaru kon moo tax man ñi daf moom la ñu war a wax dëgg raisonné ñu denc ko fi muy def ko ni lekka mu lekk nit nag da ngay am ñu xam ne da nga leen di déggal baa nga ruus leen kilifa parce que moom kilifal ci réew mi Ousmane Sonko lu mu bon bon bon am na cent mille am ko topp ñooñu war nañ ko am lu ñu war wax ci kaw ak lu wax ci suuf mais yow kenn mën laa ñaan dara ba nga bàyyi fi nga téye day màtt ba mu dëgg te yow li ñu lu ñu ko soo waxee ñu bàyyi te man dafa am ma gis naa ni Ousmane Sonko ma maa maa ngi koy tooñee barki démb moo njaay xale Pastef yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoom nekk man leen Ousmane Sonko fii la wax dañu dugub ñu xëy suba ñëpp def beñu dugub ñëpp di jaay beñu dugub Ousmane Sonko bu takkee barasa yéen ñëpp ngeen jënd barasa waaye yéen lu tax Ousmane Sonko def grève de la faim ñëpp grève def leen grève de la faim ah, yombul nag de grève de la faim leen def leen grève de la au moins ndax ñun suñu ceeb bi non peut-être la fin ah. daf ko wax noonu rek je sais pas. il faut ah, vérifier ça parce que moom moom moom dañ ko war a jàppale. raisonné ko waxu wax woo dëgg di mu dimbali boppam dimbali. njabootam bu avocat nee na nee na dafay def grève de la waaw mais mais mais xam nga loolu mooy problème bi. xam nga yow xam nga yow li nga wax. Euh, dëgg la xam nga nit. loolu moo tax dama ne. xoolal on est au Sénégal c'est la politique politique Sénégal euh, politique gu Sénégal la. ma xam nga man man loolu moo tax man ne leen. man waxu politicien man man man dama catégorique loolu man waxu politicien du ko gëm parce que xam nga lu tax. Hmm. da ngay xool da ngay xool politiku Sénégal nu mu bindoo nu mu mel ak ñen ñoo koy incarné nga hmm. xam ne que ñii li ñuy wax tey jii. Hmm. bu ëllëgee dañ koy changé. loolu mooy politiku Sénégal. loolu moo tax bu nit waxee lenn parce que affaire yi dafay changé. parce que am na kenn ku mu sa wax ba sax mu ne en politique euh, mot bi mot bi kenn du ko wax jamais. Hmm. ja on dit jamais jamais. waaw jamais bokkul ci politique. Hmm. ci Sénégal. loolu mu ngi bokk ca tubaab ya xam nga ñoom ñoom bu ñu nee non parce que ñoom ñoom dañoo am ay kii ñoom dañuy naan lii la lii la mais fii Sénégal ngay gis kenn koo xam ne tey jii am na ñoo xam ne ci langue politique bi boo leen gisee ñuy ànd yow doo ree. Mimi Touré Ousmane Sonko. ah voilà. xam nga loolu laa lay wax dama ne kii nekk tey tey jii man ak Aliou Sow dañuy nekk ni di xeex di la xeex yow naan na nga fi joy nangam boo bu ëllëgee nga gis Aliou Sow dem ànd ak yow da man ma dem fële ne la moo tax ma ne la buñ ko basé que Sonko neewoon na euh, que voilà euh, yéen bàyyi leen grève boobu moom bi mu koy wax moom loolu la gëmoon mais dem na ba ci biir am na benn situation bu ko dab. situation boobu dab ko nag. léegi moom dafay ne ah déet eh, attends. xam ah, waaw lii yàlla dama sës. ku sës nag def lu nekk. moo ko arrangé ku sës féetewoo non ku sës. non non ku sës Cheikh Diagne yàlla. ah ku sës. féetewoo yàlla de de xamul tax tax mu jeex parce que moom ci boppam. moom moo wax loolu. moo ko wax ci gémmiñam man boo mën di lee yàlla wax mais xam nga man man man su ma waxee dara ci yàlla loolu laa def non non dama loolu laa def mais bari na ñu gëm Sonko ñoo xam yàlla tax ñu ñu gëm ko parce que moo tax ñu naan ko mu sell mi waaw ba sellal ko waaw mu yow mu sell mi bañ lay sellal kay bu def lu sell di. noonu daal doy na waar. bon léegi ñu jàll suñu deuxième point éthique en politique et profil d'un président eh en politique. ak profil d'un présidentiable sénégalais ou d'un président de la République du Sénégal président de la République Sénégal nan la war a mel. Mm-hmm. Mm-hmm. bonne question. nan la war a mel. Mm-hmm. président Sénégal président Sénégal xalaat nga ni dafa war a bari xaalis avant muy nekk président. président Sénégal xalaat ngeen ni war nañu xam mooy kan président Sénégal est-ce que xalaat ngeen ni war nañu xam bu dee dafa am patrimoine fan la ko jëlee président de la République. est-ce que xalaat ngeen ni war nañu xam kii ndax liñ ko war a dénk pour mu toppatoo ñu ko ndax suñu ngëneel dina ko téye ci ay anam yu sell président de la république loolu mu war a téye ci anam yu sell ñu war ko ko dénk pour suñu ngëneel est-ce que xalaat ngeen ni war nañu xam mooy kan ndax liñ koy jox mën a am yaakaar ni dana ko def président de la république est-ce que war na di wax dëgg. président de la république est-ce que war na wax tey mbir ëllëg mu wax leneen lu sabanoo ak li mu waxoon président de la république est-ce que dafa war a baax mbaax maam Abdoul Aziz si da baax ñu nekk xale naan da baax catholique yi seen bopp di am seeni doom di ko ko tuddee ngay dem seen kër yi ñuy gis muy ñuy teg photoom ci seen salon. ñu naan dañ kaa bëgg ñii di ko ko tuddee xam naa ci tuddee. da baax ñu naan da baax da baax kenn xamul ndekete Abdoul Aziz Sy daa baax maanaam dafa baax. Mhm. mais président de la république ñun boobu lañu bëgg moo tax fan yi yëpp ma doon wax ni un président de la république dañu war a xam. li mu yor fan la ko jëlee. Hmm? di ngeen ñu ko wax nag <laughs> yéen ñi bëgg a nekk candidat Amadou Ba da nga bëgg a nekk président de la république Abdoulaye Diouf Sarr da nga bëgg a nekk président de la république oui Daouda Diallo entre autres Abdoulaye Daouda Diallo. Alioune Sarr Alioune Sarr da ngeen bëgg nekk président de wax leen ñu yéen ñaa leen kan fan ngeen jëlee seen alal. te wax leen ñu dëgg nag te jox leen ñu ay kayit yu baax parce que boo leen ñu ko joxul danañ ko seeti wax leen ñu dëgg oui xalifa Sall yow tamit foo jëlee sa alal. Assome Diatta. fan ngeen jëlee seen alal ba tey ji ni ngeen ne di ngeen bëgg nekk président de la république est-ce que yéen ay nit yu jub ngeen est-ce parce que il faut ngeen tànne ñu nag te tànne du ci xam-xam kese ndax mën nga am xam-xam. ba doon nit ku bon nit ku yàq yërmande nit ku naafeq kon wax leen ñu fan ngeen jëlee seen alal Ousmane Sonko yow it foo jëlee sa alal. non moom du candidat moom bu boolewul. non déet non dama ne ñi bëgg nekk. ñu kenn kenn teree ko ko nag. prétendant. c'est un non je parlais hmm. ñi bëgg. Hmm. oui moom it. Hmm. nañu wax fu mu jëlee alalam. nañu wax fi mu jëlee alalam. si yéen ñëpp. parce que dafa mel ni da ngeen di profité ci système bi am li ngeen di am téye li ngeen di téye def li ngeen di def ba pare ñëw dellusi ne da ngeen ñuy continuer encore di ñuy jiite. il faut ñu am ay nit yu baax nit ñoo xam ne ñàkk ak am la ñuy yemale loolu amatul ci réew mi te gisuma ko. am fi ki ma ci yaakaaroon mu nga barsax parce que ñooñu ñooñu bëgguñu dara ci àdduna waaye ñun dañu soxla. ñun dañu nekk dans une je sais pas comme ni ñu koy waxee dans dans une course effrénée du périssable course effrénée du périssable ndax lépp même alal même kër même ay bagages yi ngeen yor dafay dafay dafay nas day day seey bis amaana dina seey fekk nga teew di dund ci àdduna wala mu seey fekk dundatoo ci àdduna say doom ñoo ko jël wala say waaye dana mës a seey dana mën a mës a nasaxal il faut que ngeen seet yéen sénégalais yi nan ngeen di choisir seen président de la république. Hmm. président yi il faut ñu doon ay nit ñu baax nit ñu jub. nit ñoo xam ne xamaluloo leen lu bari buñ leen leen votel kenn mënul votel président de la république parce que da am ay yaakaar ci moom. il faut que xëy na nga am ay yaakaar waaye il faut que nga am ay mbir yu leer ci moom boo ko amul demal nga gëstu ci xool leen ñoom fu ñu jógee. xool leen lu ñu doon xool seen itinéraire bu leen leen sànnil seen carte parce que après c'est trop tard. juróomi at ngeen di def ak moom. Hmm. Niger dañu fal nit at ak genn wàll ñu coup d'état ko hmm. mais biñ koy fal xamoon nañ ko tey plus de la moitié peuple ba ñi nga xam ne ñoo ko faloon. Hmm. nee nañu d'accord nañu ak liñ ko fi jëlee alors ko dañ ko faloon. pour juróomi at. lu tax ñuy changer avis noonu. kon ça veut dire que moment bi ñuy jël seeni décision tey ñu ko woon. pourquoi à chaque fois boo bu ñu falee Sénégal ak même Afrique en général. président de la république bu defee quelque temps rek suñu yaakaar tas. lu tax luy indi loolu est-ce que posé wu ngeen question pour comprendre ana lu tax ngeen di am ñàkk yaakaar toujours ba pare dellusiwaat demaat jàppale un opposant bi ngeen di bañ Ablaye Wade bi ngeen koy bëgg amoon na période bi ngeen koy bañ lan moo nekkoon seen xel ci diggante entre bi ngeen koy bëgg ak bi ngeen bañ lan moo nekkoon seen xel entre bi ngeen di bëgg bañ Ablaye Wade ak bi ngeen di bëgg Macky Sall ba di ko fi teg lan moo nekk seen xel bi ngeen di choisir Macky Sall moment boobu bëgg ko parce que Ablaye Wade ne ngeen ko góol gi dee na suul leen ko. Mhm. moment bi ngeen di jël xa Macky Sall teg ko fi position pour mu nekk président de la République ci diggante bi ci fukki at yi lan moo fi xew ba pratiquement une bonne partie de la population du Sénégal nee nañu bëggatuñu Macky Sall. Mhm. sax pour un troisième mandat ou une troisième candidature. ñëpp di ko ñaxtu ana lii xew ci diggante bi ba yooyu yëpp di am lu tax seen yaakaar di tas à un moment donné c'est parce que peut-être que seen seetlu ak seeni seeni seen i seen i gis-gis ci nit ki mooy oyof torop nit ki boo leen ko bëggee choisir pour seen ngëneel pour benn diir pour seen destin pour juróomi at da ngeen war a xool bu baax li ngeen di def fi ngeen di teg seen tànk gëstu leen ci nit ñi ngeen di choisir xool leen ñoom ñooy kan. même bu ñuy subir injustice. xool leen ñooy kan boo gisee des fois may bëgg di seetlu ñi ñi ñu fal ba pare parce que dama naan ñi fal na leen ba boo bëgg boo gisee yenn saa yi may insister ci opposants yi. ñu bëgg nekk président de damay bañ <laughs> wax naa leen ko fi ab lay Wade bëgg nañ ko fi bañ nañ ko fi gis nañ Macky Sall bëgg nañ ko fi bañ nañ ko fi waaye léegi loolu day continuer ni toujours. ba léegi ngeen bañeeti def erreur ñi nga xam ne yaakaar ngeen war nañu mën a remplacer Macky Sall ñu doon ay nit ñu baax loo xam ne li ñu daloon expérience yu bon yi ba ñu dalal. <coughs> mais Aliou Sow euh, moom comme par exemple sànq yaa ngi doon wax ci kaw Ousmane Sonko fu mu jëlee xaalisam et léegi moom taxaw na waat devant tout le que ne moom mosul jël alalu jàmbur. donc xam nga te tamit te tamit xaama yokkal ko ci. Mm-hmm. Euh, bu ñuy xoolaat ci candidat yi bokkul ci candidat yoo xam ne euh, maanaam yoon toppoon na leen même bu fekkee ni kii nañ leen blanchir xaw ma lan kii nañ leen mais je veux parler de Karim. de de Khalifa Sall je veux parler de Idrissa Seck parce que Macky Sall euh, Ablaye Wade toppoon na ko fii. Mhm. dégg nga mais euh, man ba léegi dégguma que Sonko moom moo moom moo topp nit. Mhm. waaye moom mii mosuñu ko topp ne ko Sonko da ngaa jël dara. xam nga topp bi intéressé wu ma. Mhm. Mm. parce que ki ñu jàpp ki ñu jàpp. man intéressé wu ma. Mm. Mm. ki ñu jàppagul. Mm-hmm. ak li nga yor foo ko jël xam nga euh, gis dafa téye woon benn euh, ñoom bi ñuy dogg a ñëw ci nguur gi. système Ablaye Wade daf ko ne nos soucis d'argent sont terminés sont terminés. Mmh. Mmh. nos si d'argent maanaam suñu xaal suñu. problème mu xaalis jeex na ndóol bi jeex na sama doom. ndool bi jeex na mmh. fal nañu léegi dañuy enrichir ci fin bi bi ñuy tàggatoo. di jote laay Wade ne Idrissa sa da danga ma ameel sama xaalis déglu leen bu baax li ma leen di wax li ma la dama am lu ma la joxoon ay milliards Idrissa Seck fan la mujjee nee na waaw kay wax nga dëgg kay Wade fara Wade Ndiak. Daara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak. yokk mi ci songum xeer. waaw songum xeer. borom maami jam jam ci raxmaan. téye naa <laughs> jox nga ma xaalis bi wax nga dëgg. maa ngi ko téye milliards yi. waaye yow duma la ko jox Ablaye waat dañoo jote yaa ma ko joxoon ok waaye man duma la ko delloo dinaa xaar ba nguur gu bees gi ñëw ma jël xaalis boobu delloo leen ko ñu dugal ko trésor public. nguur gu bees googu mooy nguuru Macky Sall bi mu ñëwee depuis 2012 ba tey xaalis boobu kenn xamul fu mu nekk. kooku nee na dafa bëgg nekk président de la république te yéen doo leen ko laaj xaalis boobu donte yeneen yi xamu leen ko sax. xaalis boobu anamu boo leen jógee ci sa Seck nee nañu Amadou Ba ku bari alal la xaalis bi anamu Amadou Ba bu fekkee ni moom euh, dañ koy jiij loo xam ne nekkul na génnee son patrimoine wane patrimoine am Ousmane Sonko ki bëgg nekk président ñu bari am yaakaar ci moom dafa def une déclaration de patrimoine mm-hmm. waaye ci biir déclaration boobu am na yu bari yoo xam ne daf ko doon nëbb mm-hmm. comme yéen ay kër mm-hmm. ay kër. Ah. nañ def ndànk. Hmm. ku ko feeñal. non c'est pas ça n'a pas d'importance li may wax ñi ko war a xam xam nañ ko. Hmm. xam nañ ni man li may wax dëggal te man du ma wax lu amul. Hmm. Ah. li mu def ci déclaration bi sur l'honneur que lii ak lii rek laa am. te yow gëmuloo ko fële. non bi muy wax loolu gëm naa ko man. waaw waaw après nag après nag nga euh, ci. après nga gis yeneen bagage yoo xam ne bind ko ci déclaration bi. te mu leer na kële Sonko moo ko moom. Euh, non man damay laaj. déet parce que moom la yaakaar. man damay laaj xam nga man. Ah, ah, ah. man dugg dugg dugg wax et pourtant man damay laaj te kooku may wax noonu. waaw Ousmane Sonko moom noonu. waaw <laughs> man nit ñëw na. Mhm. nee na ma. Mhm. man yónnee naa Ousmane Sonko cent millions. Mhm. pour mu wàññil ma. déglu leen baax li ma leen di wax. parce que man fi yàlla rek a fi nekk. man compté wu leen. man dëgg rek laay wax ku ma bëgg jàpp jàpp ma si dëgg bu ma juumee dellu si nga wax ko. nit ñëw na. ne ma mais usman Sonko yónnee naa ko cent millions. pour mu wàññi euh, kii yi ma bëgg a def redressement bi ma bëgg a defal. Ousmane Sonko bañ. ne bëggul cent millions yi. dafa bañ ne du ko def wala dafa. dafa bañ du jël cent millions yi. Mm. day def liggéeyam. Mm-hmm. ma naw boobu. waaye aussi gis naa Ousmane Sonko bu def déclaration de patrimoine ne lii laa am fekk ne li mu déclaré du dëgg. am na leneen lu mu nëbb waa nit ñi lu tax ñuy def nii ñuy kii nan nga mën a jàppee nit nga xool ko nga ne kii ni mu mel du changer. Hmm. nan nan c'est moo tax euh, awma ci conseil mais ju demande juste au Sénégalais de faire extrêmement attention à saison politique mais surtout ñuy moytu benn mbir ñuy bañ choisir toujours ñi fës. day leen xool ñiñ dul wane. mais Aline. parce que am ñoo xam ne euh, système bi ay nit yu baax la nit yu jub la ñu mais duñ leen wane parce que xam nga lu tax parce que arrangé wuñu doxalinu réew mi xam nga tey ji nii chaque jour <coughs> ma laajte laaj leen ma wax leen ma Macky Sall ñaata lay par weer parce que man xam naa Emmanuel Macron ñaata lay gagné ci salaire par mois parce que dañ ko fësal France parce que ñooñu dañu bëgg di continuer di jubal. man xam naa li muy gagné waaye man xaw ma Macky Sall ñaata lay gagné Macky Sall président de la xaw ma ñaata lay gagné. xaw ma ban salaire la am. te dama ko war a xam. dama war a xam patrimoine am ñaata la am bi mu commencé di nekk président de la ak léegi lan moo yokk ci diggante bi. ak bi muy dugg patrimoine boobu mu présenté woon est-ce que dëgg na est-ce que méngoo na ak tey li mu yor ci diggante bi lan moo fi yokku. mais Aline man da nga wax ñaari wax yoo xam ne daf maa benn bi mooy ci candidat yi. ñoom ñëpp boo leen xoolee ñu ngi génne au sein de l'État wala mës nañoo nekk ci pouvoir ci candidat yëpp yëpp yëpp kenn laa ci gis ko xam ne mosul laal État te xaw ko mosuma ko gis te damay dégg turam muy Anta Babacar Ngom kooku laa ci déggagum ci turam ci jigéen mais ñeneen ñi ma dégg ñëpp ci état lañ nekkoon muy benn. beneen bi des nee nga Sénégal pourquoi ñu am problème kuñ tànn tey cinq ans dix ans ñu dàq la wala ñu ñu changé ñun amuñu problème ñi ne ci kaw problème ñi ne ci suuf la ñu am. parce que parce que ki nekk ci kaw. Mhm. boo ko fi jëlee ki nekk ci suuf moo moo bëgg a yéeg ci kaw. Mhm. te préparé wuñ jikkoom te réew mi dafa nekk réew moo xam ni bu ñuy tànn dañuy tànn ilimaan ba pare ñu la saar bii ngay tari loolu lay waral boo fi yàggee tuuti ñu jëlee la fi gis nga kii remplacé Macky Sall damay faral di wax ndeysaan sama xarit yi man leen kii remplacé Macky Sall de mën naa ni ndeyam liggéeyul mm. waaw parce que olof dafa dañuy wax ni ku yéeg ñaay ba wàcc loo yëgati mu ndaw. dafa da dafay dafay dafay doon dafay doon réew moo xam ne mm-hmm. nit ñi dañuy yàkkamti mm-hmm. te ñu ci bari dañoo feñaak bëgg xaalis te nanguwuñ liggéey mm-hmm. defa ni boo nekkee au pouvoir dañoo war a riche ci si koo ci joxul tey suba joxoo ko bu mu taxaw saagal ni dégage na fi jóge waaye nag wax yee tax kaay ma wax la euh, euh, nga xam nga lu tax hmm? nit yi euh, maanaam Euh, di yàkkamti di di di di euh, maanaam bu ñu toogee euh, maanaam benn at rek gisuñu ah rek ñu commencé weddi la parce que yow sa yow sa discours bi nga amoon ci sa programme yow li nga doon wax ci sa programme xam nga yow boo ma nee que man bu ma faloo bu ma faloo lii ak lii ak lii laay def yow nga ñëw nga falu man ma fal la nga falu ma toog ba si yàgg li nga waxoon dara defoo ko ci mm-hmm. mais loolu loolu. loolu du yàq mais mais mais li ma wax ni li koy firndeel mooy. loolu mais kër ga Macky Sall président de la République. waaw moom taxaw na fii mu ne man. man damay jiital la patrie. avant le parti. voilà mais Macky Sall loolu. defu ko mais loolu defu ko. voilà defu ko ay ay ay mbokkam ak ay nit. déglu ma rek sëñ euh, Souleymane ay mbokkam. Ah ak ay nitam la jël teg ci wetam. am na yoo ay dossiers yoo xam ne ay dossiers yoo xam ne. Mhm. ay nit ñoo ko def ci ay ci nja ci njabootam. daf ko jël teg ci loxoom. Mhm. ñeneen dossier yi nga xam ne ci opposition bi lan lañ nekk nu mu leen def saraxewu leen. mais c'est ça ñeneen ñi dossiers yi nekk ci mbokkam est-ce lu tax mu génneewu ko pourtant boo ma nee la patrie avant le parti wax dëgg yàlla man pour man patrie ngay jiital en tant que président da nekk président de tous les sénégalais mais lu tax après ci diggante bi ngay changé la moo tax Macky Sall changé moment boobu ci diggante bi. la moo tax Macky Sall bu gisee ay dossiers yoo xam ne ci famille moom la bokk du ko laal. la moo tax bu bi donte ay dossiers yu dëgg la leen di gën di di di di di di leen gën di bàyyi xel ci ñooñu ba di leen indi ay problème ñeneen ñi nga xam ne nekk ci famille am du leen ko def lan mooy différence bi pourquoi ñuy changer noonu xamul tax politique ak ngoro yam booy ngorowoo li ngay wax ak boo takkee li ngay def du benn waa man nag boo ma la takkee li ma la wax lay def sooy wut sooy wut li ngay wax sooy wut li ngay wax mhm. ah, ak soo ah. demee ba jot ci loolu moo fi am waaw moo boo demee ci maire yi tey ba élection maire soo dem tey ji nekk maire ma bëgg a jël sa place ma ñëw ci commune bi ci localité bi di wër di yàq sa ni la téye incompétent kii bu toogee man dinaa tabax marché bi dinaa def dinaa dinaa dinaa ba jëlee fi man ñaari wax yi ma leen wax ci Ousmane xanaa déggu leen ko man na ma mm-hmm. lu tax ñuy def nii ah. Ousmane Sonko bind na ah, de ah. na lu jikko la waaw lu tax ñuy def nii def nii lan la est-ce que dañ leen xamul parce que man dama gëm ni man man lu mu wax laay def moo lëndëm waaw mais lu tax mais man parce man pour man yow boo mu pour man boo ma waxee dara ci loolu nga nekk. Hmm. man man mënu ma imaginer léegi mun naa ko muñ sax. avant la gënoon compliqué hmm. mais nga may xool ni di ma wax loo xam ne du dëgg. du politicien Sénégal man je préfère nga bañ ma wax dara. Hmm. waaye pour man boo ubbee sa gémmiñ xool ma wax ma dara pour man loolu ngay xalaat c'est exactement la même chose les hommes politiques dañuy wax dara. am lu ñu téye. am lu ñuy nëpp. après nag nga gis ko am problème sa yaakaar tas. mais am ah, léegi en kan mooy am problème. c'est le peuple sénégalais qui souffre. nee naa leen alxuraanul karim. dëkk bii 17 millions d' habitants 5 millions de sénégalais bu ñu liggéeyee ba 6 millions lépp réglé wu te mën na nekk. Mm-hmm. mën na nekk c'est parce que dafa am ñoo xam ne administration bi fonctionnaire ñi bëgg nekk président yëpp xool leen ñoom rek ñoo ne ñoo bëgg nekk président waaye lu tax doo leen jël keneen ci suuf keneen koo xam ne xamuñu leen ko <laughs> pourquoi doo leen jël Cheikh Diagne Gomis quelqu'un d'autre ne ñoo xam ne ngeen di leen invité non dama exemple la Cheikh xoolal ah. ñu leen di génnee Cheikh Diagne mais xoolal on évite leen ci télé seet leen ci télé bi leen ci ci télé yi. Ah. waaw ak ci rajo yi. ak ci journaux yi les mêmes personnes. la ñuy invité toujours di leen ah. laaj seen xalaat. dëgg la mm-hmm. mais am na ñoo xam ne dañu am xam-xam toog jàpp seen ñaawlu bëgg a wax kenn du leen woo parce que xam nga lu tax parce que dañu naan xamuñu leen. Mm-hmm. c' est ça qui est terrible dans ce pays là mm-hmm. nañu jaxase carte gi. wane ñëpp képp ko am looy xalaat nga wax parce que ku wax waxaat. non non di nga dellu si bu dee li nga wax baax na. ku wax feeñ ku wax feeñ. waaye am na ñoo munatul nekk man mënuma imaginer Idrissa Seck ne dafa bëgg nekk président te waxuma man xaalis bi mu jëlee woon ci Ablaye Wade te Ablaye Wade dénkoon ko ko mu ne dina ko jox trésor public man xaalis boobu man su ma ko waxul su ma demoon mu nekk le meilleur candidat le meilleur profil la euh, la meilleure euh, euh, le meilleur programme man du ma ko fal xam xamul tax du ma ko fal su ma ko nee mu dese benn carte pour ma fal ko pour mu basculer mu nekk président benn carte rek sama bos man du ko jox xam tax parce que moom waxuma xaalis boobu la fan la ko dugal Hmm. waxuma moom patrimoine am fan la ko dugal waxuma alalam fan la ko jël moom Idriss Seck ñaata ngay fay impôt par weer Amadou Ba ñaata fay ñaata fay ñaata impôt ngay fay par at yow sa Seck yow ah, euh, Ousmane Sonko ñaata ngay fay impôt sa déclaration fiscale génneel ma ko ñaata parce que li ngay fay impôt mi ngi dépendre ci li nga gagné ak li nga am ci patrimoine mhm. ci parce que loolu ngay jël loolu ngay jël wàll def muy impôt sur le revenu bu dee am nga ay société muy impôt sur les sociétés mu am une transparence waaye loolu yëpp amu fi ngeen bëgg man ma fal leen du ma ko def te dinaa ko critiquer critiquer ko ba Sénégalais yi comprendre exactement parce que ci loolu rek nga mën a xamee nit ki li muy def parce que jëf nag moo am solo wax bi amul solo parce que Macky Sall wax na Abdou Diouf wax na Senghor wax na Mamadou Dia mi waxoon deful parce que dañ ko ko empêché mhm. ñëpp a ngi wax ku nekk ngay bëgg a nekk président waaye toujours après suñu yaakaar day tas. à un moment donné ça doit suffire te Sénégalais dinañ ubbi seen bët parce que am nañu xel waaye dafa am loo xam ne comprendre luñu ko te ñun loolu moo ñu tax a jóg il faut ñu waxtaan ceeg yéen ba mu leer après bés ba cappaandaw ga ngeen def lu leen neex. Euh, Alioune Sow waxtaan bi am na solo bu baax bu ko defee ñu bàyyi la nga. le conclure. Eh ben content content et encore content d'être sur ce plateau en espérant que bah j'ai bien travaillé quoi. <laughs> voilà ñun ñu intéressé mooy jéem a def en sorte que mbir yi xaw a jaar yoon maintenant après bu fekk dafa am ay compléments bu ñu joxee ay yedd ak ay conseils dinañ ko def waaye li ñuy tax a jóg mooy fexe def suñu kamtalaay kàttan ba mbir mi avancé. Mm-hmm. parce que les Sénégalais sont fatigués. man c'est pas mon problème moi je peux aller où je veux dans le monde. Mm-hmm. man fu ma neex soxla ma visa soxla ma te am naa lu ma dundee. te wallahi am na lu ma dundee bu ma yàlla reyul am na lu ma dundee barki Sëriñ Tuubaa